waaye ñi amul it dañoo war a joxe ndax joxe dafay defar doomu aadama joxe day tabax doomu aadama kon borom bi nee na nit ñi nañuy joxe mu mel ni dafa am ñu jàpp ni joxe mooy nga tànn li gën a yées ci li nga yore dog koo joxe maanaam loo bëggatul rek ngay joxe borom bi naa ah, déedéet ñun tey li ñu tàmm danga koy seetlu bu fekkee ci kër yi la góor gi ay yéreem balaa moo joxe day dem ba bëggatu ko sol wala sol na yére bi ba koñ bi miin nañ ko su ko solatee tuddatul dóor leer waaye dañuy xam ni daal sol na rek la mu soloon jësneeru daawam bi la sol ak ganilaa daaw bi la sol nga commencé jàpp ne comme ñépp xam nañ ko ngay ñaw lu beneen daa di jël xool yére bi nga xam ni baat bi dafa yàqu dafa tache dafa dagg dañu ko ñaw am na ñaawteef goo xam ni yow bëggatoo koo sol loolu boo ko jëlee joxe ko joxe nga naam waaye joxe lu baax te kat kuy lebal yàlla danga war a leble lu baax yonent bi di jàngal saxaaba yi ne leen nit ki li muy joxe na nekk li mu gën a bëgg li nga xam ni buñ ko doon xëccoo yow ci ngay jëkk dem booy joxe loolu ngay joxe foofu la ñuy xamee ku tabe maanaam yére yi ngay joxe ci sa valise na nga xool yére yi nga xam ni tey bu mariage amoon ñu invité la wala bu xew amoon ñu invité la boo ci yemee sol ko day doy sëkk kon li ngay joxe na nekk yére bu baax lan moo tax ndax ki nga koy jox moom it mu mën koo sol xolam sedd mu mën cee dem ci mbooloo du am gàcce du am benn rus ñaareel bi joxin boobu it nag foo ko ko joxee ba pare dafa am ay charte yu ci aju dinaa ci ñëw nit ki doo ko jox ba pare bugg koo chartal ne ko nii nga koy sole fii nga koy solee walla laa jox nga ko pare nga ci borom bi ne lan biir birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yàlla ne bu ngeen bëggee mbaax ñu ne yéen ñu baax ngeen ñu tabe ngeen du ngeen ko am lu dul ngeen joxe li ngeen gën a bëgg bu dee ci seen alal jël leen ca li ngeen gën a bëgg bu dee ci seen am am jël leen ca la ngeen gën bëgg bi yonent bi leeralee sallallahu alayhi sallam aaya bi ci benn takkusaan la ko doon firil saxaaba yi ci jàkkaam saxaaba yépp a ngi toog mu am benn waay bu jóg bu ñuy wax Abu Talha jóg bi mu jógee ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko yaa rasulallah inna allaha yaqul lan tanaalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ne ko yonent bi su ma déggee li ngay wax dafa mel ni yàlla nee na du ñu am lu baax ci moom lu dul ñu joxe li ñu gën a bëgg yonent bi ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay seedeel ne man sama alal li ma ci gën bëgg lay joxe madina tool bi gën a ngand ci madina ci seen jamono abu talha ko moom tool boobu mu ngi tudd Bayruha noonu la tool bi tudd tool bi ay hectare la yu fees dell ak tàndarma tàndarma bi gën ci tàndarma jamono jooju nga xam ni loolu su ko jëlee jaay ko ay millions yu bari bari lay am Abu Talha jóg na yonent bi ne ko wa innaha sadaqatun lillah ne ko sama fortune boobu nga xam ni moom laa am ci kaw suuf mu ne ah, mu ne ko jox naa ko yàlla arju birraha wa zuxraha inda allah mu ne yonent bi maa ngi yaakaar lii ma jox ak mbaax gi ma ci namm yàlla fay ma ko yowmal qiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ah baxin baxin zalika maalun raabih zalika maalun raabih ne cëm cëm allahu akbar ndaw alal ju barkeel te tonowu maanaam bu doon ab commerçant nga maanaam gañe nga cent pour cent ngeen xool sahabatul kiram ñun tey mi ngi mel ni rek ñu tudd fi ab milliardaire ñuy laaj kenn ci nit ñi jóg ne man joxe naa un milliard ci nàngam xam nga loolu day rëy ci kanamu nit ñi même un million boo ko joxee dafay rëy lool kon jullit su bëggee ëllëg mbiram yomb ci kanamu yàlla na yëkkati am amam di ko def ci yoonu yàlla di ko def ci projet diine yi waaye di ko dimbalee jullit yi léegi nag génn sa alal ci yoonu yàlla dafa am ay teggin dafa am ay teggin dafa am ay norme première norme bi mooy alal bi ngay génne di ko joxe na nekk xaalis walla na nekk or wala na nekk matériel la budda an yakuna min halal ndax kat sadaqa du génn ci xulul li ngay joxe di ko saraxe na nekk lu dagal bul turne xaalis fa ngay liggéey ñëw di ko saraxe da ngay sonal sa bopp loolu du sarax alal bu lewul kenn du ko saraxe ndax li ngay jël boo koy joxe danga naan nit ki am yàlla jox la li nga ci jublu mooy lii ma la jox yàlla laa ci jublu nan ngay jubloo yàlla jël alalu sàcc détourné alalu gouvernement détourné alalu réew détourné deniers publics bi ñëw tabax ci jàkka wala ay paa bëgg jàkka ñu defal leen yow leer na leen da ngaa détourné deniers publics société ba ngay liggéeyee dangaa ngaa détourné kees ga nga ñëw tabax jàkka ji ba mu mel ni panaal fu ko defee fu ñu tourné nag naan Omar Sall moo tabax jàkka ji nàngam nangam xam nga ni yaa ko tabax waaye xam nga ni tabaxee woo ko alal bu lew du tee jàkka ji mën nañ caa julli mën nañ caa jaamu yàlla mais yow mënoo cee am tuyaaba waaye yàlla xam na ko ñaareelu teggin bi ci jox bi wa an yaxtasibal ajra min allah li ngay joxe bu ci xaar ku la gërëm dëgg-dëgg kuy joxe di xaar ku ko gërëm nag dëgg-dëgg joxe woo waaye kiy joxe waroo xaar ku la gërëm léeg nga gis ñun suñuy aada ak ñenn ci nit ñi sa xarit sa dëkkandoo néew doole toll ci jamonoy jafe-jafe nga dimbale ko amaan na sax dépense nga ko dimbalee wala leneen bis jot seen dënn jóg rek nga pour ah, pourtant fii laa ko dimbale fii laa ko defaloon nangam bu du woon ak man day dee yaa yore bakkan ba ndax ne ndax day dee kon loolu li muy tekki mooy seytaane da lay mën ndax li nga def commencé nga ko yàq ndax bi nga commencé gis ni def nga rek mooy yàq ñëw na ñetteel bi mooy li ngay joxe ay yakuuna xaalisan li wajhillahi alkarim na nekk lu sell nekk ngir yàlla waaye ñeenteel bi an yakuna fi sabilillah li ngay joxe nag na nekk ci yoonu yàlla yoonu yàlla li ngay joxe na nekk ci yoon boo xam ne day jëriñ nit ñi day jëriñ jaamu yàlla yi beneen bi joxe googu na dëppoog fu ñu ko soxla boo joxee fu ñu ko soxlaawul doo ci am tuyaaba bërëbu puukare boo ci joxee doo ci am tuyaaba maanaam bu ñu dajee woon tey grand théâtre yàlla nañ ci yàlla musal daje ci bërëb yu bon yi gars yi daje benn waykat di way nga taxaw yore say billet di battre rek di joxe yaa ngi joxe mais yàllaa ngi lay rëbb parce que joxe woo te yàlla tax danga nga tur nga ci doon ut loolu ngay ut tur te fi nga koy joxee nekkul fu neex yàlla ñaareel bi li ñu lay wax ba tax ngay joxe yàlla taxul da bëgg sa jëmm feeñ yaa def nangam moo tax li ngay joxe na nekk ci amalul xayri wal birr na nekk ci jëf ju baax ak def njekk beneen bi boo koy joxe it nga yëg ci ak kontaan waaye bu ko joxe ci ñàkk pexe xam nga am na joxe boo xam ne joxe bu ñàkk pexe la léeg nit ñëw sa kër heure boo bëggul ñëw fa fatt la laaj la nga jox ko maanaam joxu demal génn <laughs> joxu demal génn moom wax dëgg yàlla du joxe léegi-léegi nag léeg-léeg kii laaj dina def njuumte waaye mën naa yóbbu it joxe ci njuumte ndax nag dëgg-dëgg nit ki toll ci bërëb boo xam ne xamoo fu mu toll nga fatt ko rek pour mu jox la léeg-léeg mën na laa jox sax moom ñàkk ci tiyaaba fekk yow yaa ko sabab beneen bi yëgal ni loo joxe ci yoonu yàlla ah borom bi ne yaa ngi mel ni koo xam ni jël na suuf teg ko ci montagne xeer asamaan si taw ndax suuf si dana fa des déedéet day dem mooy lépp lu nekk ñaawtif ci yow jamono bi nga joxe dafay daal di dem borom bi ne wa mathalu alladina yunfiquuna amwaalahum ibtigaa mardati illahi wa tasbitan min anfusihim ka mathali jannatin bi rabwatin asaabaha waabil fa aatat ukulaha difayn fa in lam yusibha waabilun fatal wallahu bima taamaluuna basir beneen bi bokk na ci teggiinu joxe bi na nekk ñaar sàkku nañ ko ci joxe an yakuna sirran aw yakuna alaniya nit joxe mu nekk secret moo gën ci yoon yi ndax ki ngay dimbale amaan na mu nekk góor gu bëggul ku ko siiwal soo koy dimbale nëbbu ko waaye am na ñoo xam ne bu ñu lay dimbalee dañu lay weer wax dëgg yàlla nit ñëw na diis la boppam borom kër la wala nit am na jafe-jafe nga war koo dimbale nga woo sa jabar ne ko jëla cinquante mille bi joxal ma ko Ibrahim sa jabar lan la ci uti yow yaay joxe ngir yàlla loo ci dugalee sa jabar yow mun nga wéet ak nga jox ko ko waaye joxub soxna si seedeel ëllëg pour buñ jotee walla seedeel nangam boobu jox du joxe ngir yàlla kon nag joxe bi nëbbu ko ki tax nga di ko joxe xam na ko te moom mooy borom bi taala wa tabaarak am na nag fu ñu soxlaa joxe mu siiw joxe mu siiw am na fu ñu ko soxla baas baa ngi nii gaa yaa ngi toog am nañu soxla am nañu programme ñu ne mbokk yi kat am na liggéey bu ñu soxla dañoo war a jënd baas wala dañoo war a tabax teen wala nàngam lu waaye mën fii sabilillah nga ñëw génne dix mille francs ñëw ne imaam maa joxe dix mille francs boobu soo deful ndànk ku gàtt xel dina la jiite te xam nga moo kii moo bëgg moo ngal te nag ñun ci ñun la gën a bëri mbokk yi gis nga ñi tàmmul joxe ku joxe ñu atte la joxe boo ko tàmmul ku joxe nga atte ko yow amoo loo joxe ñaanalal ci joxe mais non lu tax muy wanewu fii quoi ci vidéo yi noo yaa xii kii deful ngir yàlla yow yaa xam ku def ngir yàlla da ngaa dëkk ci xolam loolu mu def. am na benn Omar Sall boo xam ne denc na lu ëpp dix mille francs waaye moom deretam dafa gaaw a tàng ku joxe rek mu joxe buggul kenn ku ko dóor nga ñëw joxe dix mille francs Omar Sall ñëw yëkkate vingt mille ne imam maa teg vingt mille francs waaw benn Khalidou ba jóg fële ñëw ne maa dóor cinquante mille francs beneen waaye ñëw ne joxe naa mille francs mu mel ni mbir mi kenn ku nekk da nga koo xiir pour mu joxe boobu joxe joxe daawa la mm-hmm. joxe woote la joxe ngir nit ñi encouragé leen la kon bu kenn àtte kooku ndax mbir yi nag dëgg-dëgg ci problème mu xol la kenn waru ko jugé nañ ko bàyyee yàlla beneen biit nag léeg-léeg nit mën na joxe ci am léeg-léeg nga am joxe bu baax waaye nga ñàkkit joxe bul ni dama ñàkk aw ma lu ma joxe non nit lu mu néew néew am na lu mu mën a joxe te gis nga yàlla subhanahu wa taala day leb boo ko lebalee dalay fay borom bi wax na ci suuratu baqara man za alladi yuqridu allaha qardan xasanan fa yudaacifahu lahu adcaafan kasira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turjaun nee na ana kan mooy lebal yàlla bor bu rafet su lebalee yàlla bor bu rafet yàlla nee na dina ko ko fulandil ndax yàlla mooy joxe mooy xañe kon jamono boo bëggee sa wërsëg ubbeeku del saraxe jamono boo buggee am liggéey del saraxe <coughs> jamono bi say mbir jafe da gis léeg-léeg nit ku la ne man samay affaire dafa dëgër xam nga lu tax mu dëgër koo seetlu mu ne samay affaire dafa dëgër ak loxo bi daa dagg ci mbagg bi waaye bu fekkee ni yow loo yor nga joxe ngir yàlla sa affaire dara du dëgër moo tax moo xam góor wala jigéen soo utee ay mbir ay yoon mu të xam nga yoon bi génneel del joxe fi sabilillah del sa te yàlla tax ndax dafa am ñoo xam ne ay miskiinu yàlla lañ ñooñu boo leen di joxe yàlla subhaanahu wa taala mën na laa dimbale juróom-benneel bi nga jàpp ni li tax ngay joxe dee mi ngi ñëw te dee day bette alal ji nga denc saa boo deewee rek mën na dugg ci bërëb bu la neexul kon jamono bi nga koy am na nga ko joxe mën nga am alal di joxe waaye tàggatal sa njaboot. ci ñu xam lañ moom ne ci joxe ba boo joxe problème du am léeg-léeg góor dina bëgg a joxe jabaram désencouragé ko kooku jigéen bu doy waar la jigéen bu sa jëkkër dee joxe da nga ko war a encouragé ndax amul kenn ku joxe ba ñàkk loolu amul yàlla nee na du am mukk joxe ba ñàkk amul fenn kooku yàlla ko garanti saa boo joxee rek yàlla ubbil la wa man yuuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun borom bi nee ku dindi nay bi ci bakkanam ñooñu day ñu texe lañ kon da ngay xam ni ndeke yoo saa boo joxee yàlla da lay ubbil bunti xéewal yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma min yawmin yusbihu al-ibaadu fiihi illa malakaani yanzilaan fa yaquulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan xalafa wa yaquulu al-axar allahumma a'ti munfiqan mumsikan talafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul benn bés bu jaam ñi di xëy yeewoo seen bakkan lu dul ñaari malaaka ñëkk nañ leen xëy fajar balaa ñoo julli malaaka yi dañuy wàcc ba ci asamaanu benneel mooy asamaan bii ñu tiim ku nekk ci ñoom ñaar day ñaan kenn ki dafa naa yàlla sa jaam bi joxe yàlla na ko yokkal loolu nag sa dépense su kër ci la bokk sarax bi nga génn ci la bokk ndimbal bi nga génn ci la bokk GIE bi soxla bi ñu soxla ci la bokk basang bi nga jënd def ko ca jàkka ci la bokk ku jeexle am ordonnance nga jënd ko ca la bokk kon allahumma aati munfiqan xalafa yàlla ki jël alalam dépensé ko soppil ko ko lu gën la mu joxe woon kon saa boo joxee bi idnillah yàlla da lay jox te dama koy faral di nettali dama am sama sëriñ daara yàlla yàlla yërëm ko daf ma yéem ci joxe saalum ni mu méttee dañ doon bay ñu bayee dugub bi bari gerte gi bari taalibe yi dugal ko ci biir kontaan su ko defee ñun ñëpp ñu kontaan ndax kat dund am na mais wallahi sëriñ daara da ngay jékki rek borom sareet ñëw mu ne génneel ko ñeenti saako sunu benn xarit bi yoroon magasin bi day mujj dem ba mer day joxe balaa ñuy am 6 mois li nekk ci daara ji yépp mu joxe ko bu gaa yi kaasee mën a déet ñun yàlla la ñuy lebal waruñoo nay saa buñ joxee yàlla yàlla joxuñu mm-hmm. te gis nga loolu maa ngi rappelé wu ñaari yoon benn bis sëñ daara joxe na ndeke li mu joxe dépense su kër gi ci la bokk bi mu ko joxee benn soxnaam kaas ma ne ah waay yàqu ma ko de ji la de fa ma ko ji xam naa ne luy sax la soxna si ne ko déedéet ba ngay joxe waroon ngaa xool njaboot geeg taalibe yi mu ne ko ah fi ma ko ji de xam naa ne dana sax te fa ma ko ji sax léegi lay doon waaw foofu moom du tool du tool boo xam ne da ngay sotti di xaar mu taw gis nga tooguñu même pas deux heures de temps benn waay jóge Gàmbi ku ma xam nuy ci seen daara waxtaan ak moom bi mu paree génn taal otom ñu foog ni ñibbi na mu dem Kër ma bi mu demee Kër Madiabel dañoo jékki rek gis benn camionnette mu def ci 3 tonnes ceeb diwlin kenn xamul nu mu toll wallahi keroog bi mu indee ñun taalibe yi dañoo def géew di fecc ñun dañoo def géew di fecc dañu wax ni toolu yàlla ndeke loo ci bay mu sax seen daara ñu naa ah, waaw loolu de maa leen ko wax yàlla de mooy la tool boo xam ne boo jumbee léegi mu saxal léegi loolu jullit bi dafa war a yëg ni kenn du joxe ñàkk jigéen ji xam ko bul yëkkati joxe jàpp ni ñàkk nga gis nga li nga joxe moom nga am moom lañ la noteel yowmal qiyaam benn bi fi yaa Aysa joxe na joxe joxe joxe ba dara desul jaamam bi ci kër ne ko yaay joxe nga ba amuñu lu ñu lekk mu ne ko déedéet xam nga li ñu moom mooy li ñu joxe li fi des la ñàkk ñun li ñu lekk la ñuy perte mais li ñu joxe loola dañu koy am beneen malaaka bi lan lay wax dana ne allahumma aati mumsikan talafa yàlla ci téeta joxewul li mu am bu mu yokk yàlla na yàqu am na ci nit ñi ñoo xam ni balaa ñoo am jàmm bu ñu xëyee wëññi wëññi wëññi wëññi ba xam ni cent mille la dugal ci poche bi kontaan dem nañ dootuñ joxe pare nañ parce que ñoom bu seen xel dalee rek ñu wëññi ngelaw li tax liy mooy comme doo joxe da xëy bis ñëw rek ñàq ñu naa ah, fekkee da ngaa jaar Sandaga gars yi deux doigts la waaw tafu pochette ba sànni ko parce que da nga ko téye doo ko joxe li nga am del joxe ndax yàlla jox la te nag boo amee dara boo joxewul dara du ko remplacer kon nga yëg ni mbokk yi joxe dafa baax beneen bi joxe ci yoonu yàlla day musal nit ci mbugalu bàmmeel day musal nit ci mbugalu bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee di ñaan ba ñëw ñëw na woo jigéen ñi ne yaa ma'shara nisaa na wa aksirna al istighfar fa inni ra'aytukunna aksara ahli nnar mu ne eh yéen jigéen ñi saraxe leen jigéen ñi mu mel dañu yonte bi lu tax ñuy saraxe mu ne na saraxe ndax yéen ëpp safara de yéen a ëpp saraxa safara na ngeen saraxe benn jigéen ji ne ko lu tax mu ne ko da ngeen mën a xas seen jëkkër yi lool lool lool te dangeen a mën a ñàkk respect kon kii ñàkk respe di teg jëkkëram lu mu tegoowut kooku nay góorgóorlu ci saraxe moo tax boroom xam-xam yi ñu ne ndeke sarax day dox diggante nit ki ak mbugalam yowmal qiyaam mbokk yi jullit fu muy dund koñ bi muy dund war naa fexe ba bokk ci ñiy participer ci lu baax koñ bi lu ñu am lu baax rek bul xaar defal sa wàll participel yonent bi ne na ahabu nnaasi ila allahi anfaauhum wa ahabu l amali ila allahi azza wa jalla sururun tudxiluhu ala muslim nee na ki yàlla gën a bëgg ci nit ñi kan la yàlla gën a bëgg yonent bi nee na anfaauhum ki leen ëppal njëriñ nit di nga dëkk ci koñ yàlla xam na ko yaa ëpp gàllaaj gàllaaj nekkul ndomb bi ngay takk loolu du gàllaaj mais xam nga luy gàllaaj loxo bu tabe jir nga bu sa loxo tabee ñëpp a ngi lay ñaanal ñëpp chaque jour nit ñi dañuy ñaan fekk la sa kër waaw bu nit ñi di ñaan fekk na fa mooy ñu ngi lay ñaanal gudd fan lan moo tax parce que yow da ngay dimbale nit ñi da leen di defal ngir yàlla nit ki buy ñëw di la seet si pour soxla ñaanul nga feebar ñaanul nga jàpp ñaanul nga sonn moo tax di def fi sabilillah wallahi lu ama ama am solo la jullit ñi jamono ba ñu ko bàyyee lañu ñu commencé gis ay fitna yonent bi nee na jëf yi bi ci gën moo nga dugal ci xolu jullit kontante dugal ci xolu jullit kontante am sam benn papa bu ndaw dafa mosot liggéey ba wàcc yàlla dogal liggéeyam neex mu jaar seeraas defar lu fa ay ndeysaan bi mu ñëwee otoom ba jub kër gi am na benn kër dëkkandoo la paa bi wàcc génne benn saaku jox ko soxna si jox ko xaalis soxna si ne ko lan la mu ne ko soppil cin yàlla dikk na soxna si dugg ci biir ndeysaan soppi cin defar jëkkër ji liggéey ba wàcc ñëw fekk affaire yi doom yi kontaan ñépp kontaan mu ne soxna si foo jëlee lii mu ne ko allah ji diw moo fi jaar ne nañu soppi cin góor gi génn ci këram ñëw bi mu ñëwee ne ana diw ñu ne ko mu ngi nii muy bëgg war a paa bi ne ko mukk bul wax téye gémmi gi bul wax mukk mukk gis nga góor gi da doon jooy parce que il fallait que mu wax mu ne ko bul wax mu ne ko mukk danaa wax danaa wax mu ne ko dimbale ma bul wax yàlla rek a tax ma def mais mënalu ko dara mu taxaw foofu di ko ñaanal di jooy ne ko billaahi li nga ma defal nii ay weer xaw ma fu ma koy amee ci sama njaboot kon jullit da nga war a fexe di participer ci jafe-jafe jullit yonent bi tax bëgg solidarité nee na même boo dëkkee ci koñ boo toggoon yàq ko nga xam ni bëriwul sax yokkal ñeex mi pour dimbale sa mbokk ndax am na koo xam ni bëgg na ko te amu ko kon loolu dimbalee ko waaye bu ñu demee nag ba jamono léegi dañuy ñaawalante ngir togg nañu lu neex jël sa po mbalit ci buntu kër gi bàyyi ba deux heures génne yax yeeg béjjén yi teg ko fa nag bu ko xale yi suulee ngeen ne bu leen suul bàyyi leen ko foofu weñ yi biiw ko pour ku jàll ñu ne démb xar ngeen rayoon loolu jullit dafay moytu lu mel noonu kon dugal ci xolu jullit lu ko kontaanloo lu baax la waaye yonent bi nee na fexe ba nit jaaxle nga dindil ko ko it jaamu yàlla bu rëy la nit am ordonnance wala ñu war koo opérer wala mu nekk ci jaaxle nga ubbil ko bunt ba loolu yomb tuyaaba gënu ko rëy waaye yonent bi nee na bokk na ci it nag nit xiif nga dimbale ko beneen bi ni nga yëg nii jël sa alal def ko ci yoonu yàlla day far bàkkaar dinay far bàkkaar nit dinay jël alalam di ko joxe ba kenn dootu ko bindal benn bàkkaar lan moo tax ndax ñamuy dox ñu ngi koy ñaanal te loolu xadis bu wér la yonent bi nee na as sadaqatu tukaffiru alxataaya wa dunub nee na sarax dafay kaffaara ay ñaawteef ak i bàkkaar beneen bi na nga yëg nag sarax dafa am ay yoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan génne dafa daan joxe da daan wax ni maa naqasa sadaqatun min maal nee na sarax joxe du génne alal du ko wàññi joxe nag am nay façon fii mën naa tudd sarax fii mu tudd ndimbal